على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولي yi mbokki déglukat gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak saxaabaam dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ousmane Bey mel ni ñu jóge ci xew-xew bu rëy mu di màggaluk Tuuba eh, ñuy ndokkale jullit ñëpp ci xew-xew bu rëy boobu di ñaan itam ñi demoon yàlla indiwaat leen ci jàmm ak salaam mu mel ni tabarakallahu mbokk yi ñi ngi woon ak yéen ci siira te fan yépp ñu ngi doon waxtaan ci xare yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare na ko waxtaan wi ñu génn ñi ngi jóge ci xare bu ñuy wax Muraysiya defe naa xare yi bari nanu waaye fas yéene nañ ko topp ndànk-ndànk xare boobu nag di xaswatu muraysia xew-xew yu rëy daf ci am ndax gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na ca jigéen ju baax ju mu tuddoon bar Sidi Xaaji Maalik Si mu ngi koy wax ne aamal muraysi'i aamal muraysi'i qad xiidat juwayriyatan ay caama xamsin ladaa dil juudi walkarami كان اسمها برة أيضا فحولها خير البرية طرا كاشف الظلم في سهم الثابت في سهم ثابتة حلت والنبي شرى ها منه قيل أبوها الخلف لم يرمي تحت, تحت ابن صفوان كانت قبل شافعنا توفيت عاما والعمر في يكم مروان صلى عليها صل ربي على هادي البرية طرا عيمة العيم زايا روت min xadiisin xaada itratuha man nan laqad saaharu aafi junaatihimi mu ne ci xare bi ñuy tuddee Muraysia nee na ci la bi dañ ci jigéen ju ñuy wax Juwayriya mu tollook atum juróomeel ma ca gàddaay ga nee na Barra la tuddoon ñu soppi turam tuddee ko juwayriya mu mel ni ndaxañ na fi histoire am yépp waaye gis nañu ne keroog ba mu génnee àdduna moom juwayriya marwaan moo ko jullee mu mel ni doon na sa yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sëy kese bàyyiwu ko fa woon ndeke doon na uh, jàng ci yonent bi sallallahu alayhi ndax wax nen ne nettali na lu tollook juróom-ñaari xadit mel ni soxna yépp kenn ku ci nekk am na loo jële ci sang bi mu mel ni ci xare boobu gis nañu ci itam ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam sallam nettali na ci xew-xew bu rëy te moo di bu rëy boobu nga xam ne na àdduna te booba yonent sallallahu alayhi wasallam sallam yàlla xamal na ko ko ci xayb ca ba ngelaw la uppee upp bu rëy ba ñoom ñëpp ñu jaaxle ci ne lu waral ngelaw li upp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ngelaw li du musiba buy wàcc si ci jullit ñi mukk uppug ngelaw li itam du musiba bu wàcc Medina ndax yàlla aar na Medina ci ay malaaka yu koy garde da fekk ne kay dafa am naafiq bu rëy boo xamante ni faatu na Mudi rafa'at ibn zaid ibn tabut ken la woon ci yi yahutu bani qaynuqa motax ubadat ibn samit ñewon ci abla ibn ubay ne ko ya aba habab, mu ne yow aba habab sa khalid ba de kan la mu ne ko kan moy ki nga xamanteni deewam bénéfice u lislaam la ak alkandeem taraangale lislaam la kooku kan la xanaa rafaatu bnu thabit foofu nag la ablaay ibnu ubay ne yaa way laa kon de sama toskare euh, loolu itam day wane rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla dana koy faral di ubbil rido kumpa mu cay gis loo xam ne moom rek a koy xam ndax loolu beneen xew-xew seede na ko ndax gëléemam googu ñuy wax xaswa dafa réeroon ci seen tukki boobu bi mu réere jullit ñi di ko gëstu di ko wër di ko seet waaye am na benn yahud bu ñuy wax Zayd ibnu Lusayd moom itam mu ngi bokk ci yahudu Qaynuqa ab naafiq la woon mu wax nag wax bu yéeme ne su fekkente ni seen yonent bi waaw yonent bi bu fekkee yonent gi muy woote dëgg la afala yuxbiruhu llahu bi makaani naqatihi xanaa su fekke ak yonentam deug la xana yalla duko wax bop fan la gileemam gi nek neena bimu waxe wax bi amna ci julit ñi ñu gaddu jaasi wuti ko nar ko ray mu daw ñew kat làqatu si ci yonent bi te kat yonent bi la doon jew ba julit ñi nar ko ray mu daw ne dafay làqatu si ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam, waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ko yàlla xamal ci wàllu xayb kumpa gi ñëpp réere naafiqa ba daw na ñëw te kenn waxagul dara yonent bi yonent bi wax ci saasa ne ko inna rajulan min almunafiqin shammata an dallat naqatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaal alaa yuxbiruhu allahu bi makaaniha yonent bi ne am na benn waay day ci naafeq yi moom de mu ma may yëjj di ma ndokk gi wax naan a ah, moom de gileemam réer na moom yonent bi xanaa bu dee ab yonent kay yàlla dana ko wax fan la gileem nga ne waaye yonent bi sallallahu alayhi wa ne giñ naa ci yàlla mi ma bind ne yàlla dana ma wax fan la sama gëléem gi nekk xanaa looloo gën a tee mu ne wante nag wala yaalamul xayba illa allah ak kumpa kenn xamu ko yàlla rek ko xam kon sukkandiku naa ci moom pour mu wax ma sama gëléem googu ñuy wax xaswa fan la nekk waxtaan wi weesu déggoon ngeen ne gëléem googu ci la yonent bi gàddaaye Seydina Abubakar moo ko joxoon mu jënd ko ci moom waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna allaha qad axbarani bi makaaniha wa innaha fi hada shaab yonent bi ne yàlla de wax na ma fan la gëléem gi nekk gëléem gi mu ngi ci xur wi su ngeen duggee ci xur wi mu tegtal leen ab barab ne bu ngeen fa demee da ngeen ko fa fekk ah, ba ñu ñëwee ca xurwa barab ba leen yonent bi waxoon fa leen fekk gëlëm googu ñuy wax xaswa ñu indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni kon yahud yooyu ni ñu nekkee woon lakkal ci Seydina Muusa daan ko laaj di ko sonal gis ngeen ca nag wa ba ñu ko reyee wala boog ba mu leen waxee ne dem leen ngeen ren di nag laaj nañ ko nag wanu muy mel bu leen waxee melokaan ñu ne ko dégguñu ko lënt na ci ñun ngir ñu ko leeralal ba mu mujj leen wax melokaan wu yéeme laata ñu koy am sonn nanu ci yahut yooyu seen jikko jooju moo leen bàyyiwul ñoo ànd ak yonent bi nekk ay naafeex gëm ko ci biti te nëbb ak kéeféer ci biir mu mel ni beneen xew-xew bu rëy am na ci seen yoonu tukki bi gannaaw ba ñu jógee ci xare boobu ñu doon xareek ba banil mustaliq ndax jigéen ju sel ju baax jigéen ju yiw jigéen ju yàlla fonk di saydatuna Aïcha am na tuuma bu rëy bu ko topp te la yëkkati coow la ba mbir mi mujj nekk lu garaaw moodi di yahud te itam moo di naafiq bi sallallahu alayhi wa wax nanu ne ci yoon woowu am na fu ñu defoon escale ba ñu defee escale yonent bi ne saxaaba bay jóg leen ñu dem ba ñu jógee di dem ndeke saydatuna Aïcha caqam wadd na mu wëlbatiku di seet caqam ndeke bi mu wëlbatikoo di seet ca xam ci la yonent bi digal saxaaba yi ne nanu dem bu abu ba mi nga xamante ni moo yoroon gëléemam doon ko wammatal saydatuna Aïcha te seen gëléem yi daf daan am hawdaj hawdaj espèce su mbaar lay nekk moo xamante ni dafay fat soxna yi dañ daan nekk ci biir kenn du leen gis ci teg gu mel noonu la saydatuna Aïcha nekkoon waaye ndeke abu aba muwayhiba moom xamul woon ne saydatuna Aïcha wàcc na di topp ca xam ah bi yonent ndigal comme mbooloo mi dafa bari yàlla dogal moom mu jóg rek départ ak gëlëm gi dem wax nanu woyofuk teg ga wonu ko ne ko na Aïcha nekk ndax boobu jigéen ñi daawuñu lekk lu bari maanaam jamono boobu dafa fekkoon sayyidatuna Aïcha nekkul woon nit ku am yaram lekkam bariwul woon ba tax mu yor yaram woo xamante ni giléem ga dina diis bu dee jóg gilem gi jóg jóg boyef waye waaye jóg bu woyof googu taxul aba mooy ba ñaaw njortu ci ne aisha sayyidatuna aisha waccina e borom xam-xamu sire yi werante nañu sax ci ne li waral yàlla faratal tim ci xet wi nee sayyidatuna aisha la ci barab boobule wax nanu ne e, sayyidatuna Aïcha topp boobu mu doon topp caqam te barab boobu nekk barab bu sori ndox neneen te waxtu julli dab leen fa ñu war a julli te amuñu ndox ci la yàlla farataal tiim wax ne ne sax tardeel boobu mu tardeel nit ñi merloo na bayam di Abu ni Siddiq radhiyallahu anhu ba don na ca yedd wante itam barke la ci mom soxna si yalla wacce yermande bu tol ni tim ci ko xet wi lolou batay rek daf di ndaw si mo am barke batay ku amul ndox mo wala boog soo jëfandikoo ndox mi mën naa yokk sa feebar wala mu jur ci yow feebar lislaam yoonal na ci yow nga tiim te sabab bi mu ngi jóge ci saydatuna Aïcha radiallahu anha moo tax ñu ne bi mu demee di topp ca xam boobu yàlla dogal na ah gàdd ga dem nanu ba ñu demee nag ba mu ñëwé fekk fa kenn mu daal tok nak ci ca taatu garab ga di nelaw mom sayyidatuna aisha moy nettali histoire bi kon nanu ànd ak yéen dem ci saxiixul bukhari ñu ne an aisha radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ني جلي ننتي صحيح البخاري نجلي تي ننتي بصل نجلي تي سيدتنا عائشة رضي الله عنها موني ينتبي صلى الله وسلم سابو مسا نجوب نمتوكي Nena da fay bantale soxnam yi kan mo ci wara genn mom ak Nena, ci tukki bi neena kep ku nga xamanteni nak yow la bant bi dal manam buñu defé tirage bi ki genn mom moy genn and ak yonent bi neena na moom sayyidatna Aïcha bantale nak Nena sama cër mo genn ma genn ànd ak moom jamono bobu nak fekk na sharia yonal na jigen di muru neena na mo don sabab ñu yegal ma ci gilem gu nga xamni ne kenn du ji sama jëm neena na na nok yonent bi sallallahu alaihi wasallam Nenek ci xare Wah ñuy wax Muraysia ba xare ba jexé ba ñuy dellu ba ñu ba jégué Medina Nenek té ñu def escale gennon na doon ndox sama benn mbir neena ndax sama ciak mo wadon mu koy wut neena lolo taxone nit ñi dem ba ma fa te waji ji doon wamar sama gilem de mom xamul ne nekuma ci gilem ga nekuma ci xawdëj ba neena jamono bobu nak ñun jigen ñi suñu woon ndax daawuñu lek lu bari neena ndax jamono bobu daawuñu lekk lek yapp amna benen ñam boyef buñ daan lek neena lolo looloo aba moy woy yegul di sayu woyefuk gilem gi nee na bi ma demee ba ji sama caq ba nee na bi ma dellusee fekk naa nit ña dem nanu nee na ma dëdmal barab ba gëléem ga yësoon nee na fekkuma fa gëléem nga fekk naa ne aba mooy hiba xaaruma dem na ndax foog na ne maa ngi ca kaw xaw daj ba nee na ma nekkoon kon naa toog ci barab bii amaana bu ñu demee ba nemmeeku ne nekkuma ci gëléem gi danañu wàññeeku ñëw jël sima ma nee na foofu ma tok nag